Adiba ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi maa ngi leen di fay di leen joxe jaajëfee ci li ngeen ma invité. ngay chargé des revendications SUDES euh, enseignement supérieur euh, tey jii euh, syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal euh, ñu euh, adopté euh, conseil des ministres bi mujj projet bi nga xam ne day jëm ci modalité yi ñuy tabbee recteur ci université publique yi ñu bëggoon ci am seen xalaat ndax coow loolu yàgg na fee nekk. waaw ñun SUDES supérieur et recherche. ñun mësuñu am problème ci ñu ne président de la république moom mooy tànn recteur bu ko neex. Mm. bu fekkee rek ci muy tànn professeur titulaire la. Mm-hmm. de classe exceptionnelle mën na nekk. loolu képp ku mu tànn bu ko neexee ko tànn. Mm-hmm. Euh, am na université Dakar nu mu demee mooy dañ doon jël benn doyen yi. Mm-hmm. Euh, tànn ko mu nekk recteur. pour ñun loolu moo gënoon. wante euh, léegi liñ def itam. mën wax ni lu baax la parce que dañuy def appel à candidature képp ku bëgg nekk recteur te nga am qualification yi nga présenté wu après ñu def benn commission mu jël ci ñett mu jox ko chef d'état chef de l'état jël ci ku ko neex mm-hmm. loolu mooy euh, situation bi te mën nga ni loolu itam avancé la mm-hmm. wante loolu en fait ñun ñun SUDES mm-hmm. euh, du loolu la lool du suñu coobare suñu yoon nekku ci parce que ñun li ñu wax mooy université fi ñuy jëlee décision yi maanaam conseil d'administration bi nga xam ni mën na yeewu suba ne faculté bi dama koy tëj wala département bi dañ koy tëj. Mm-hmm. foofu la ñu wax ni jàngalekat yi ñoo fa war a gën a mm-hmm. loolu mooy suñu mooy suñu mooy suñu coobare ñun si des enseignement supérieur et recherche te loolu ba léegi amagul donc loolu pour ñun loolu mooy problème bi wante ni ñuy tànnee recteur pour ñun état du Sénégal puisque mooy def xaalis bu bëri ci université yi chef de l'état bu tànnee recteur itam du problème ci ñun l'essentiel mooy ñun yenn décision yi nga xam ni c'est important bu ñu koy jël mu nekk jàngalekat yi ñu ngi fa te loolu loi bu bees bi defu ko. kon daal li ngeen bëggoon ñu laal ko yéen euh, du foofu lañ dem. foofu lañ dem dañu dem fi dañ dem boo xam ne fii amul benn benn benn importance mm-hmm. ñu naan dañ fay yónni dañ fay yokk démocratie. xam nga loolu moom loolu moom yokkul dara ci ci ci fajul dara itam. fan yi ñu wees ñu gisoon ne enseignement supérieur xawoon naa am yëngu-yëngu ndax am na seen yenn collègues yu nekk ci beneen syndicat bu supérieur daal di bank seen yoxoo euh, demuñu jàngale euh, bu ñu sukkandikoo ci seen mot d'ordre bi ndax euh, la xew ca université yi jamono ji dégguñu leen ci yéen SUDES lu xew. waa ñun xam nga lu ñuy lu ñuy wax mooy effectivement université yi jaxasoo na trop loolu moom kenn mënul wax ni amul. Hmm. li xew itam rafetul parce que nga gis ay étudiants dugg ci classe euh, di grève euh, dem ba ci jàngalekat bi nangu micro xam nga loolu euh, du yaax baaxul rafetul. Hmm. wante itam loolu bu bu amee. am nañu am nañu ay ay yoon yu ñu wax a jaax. ngir mu mm. ki ko def est-ce que traduire nañ ko conseil de discipline kooku ñëpp gis nañ ko mm. euh, filmer nañ ko dugal ko ci internet est-ce que traduire nañ ko conseil de discipline mm. euh, violence yi am ci université yëpp xam nañ ñi ko def est-ce que ñi leen war a euh, yilif ñun ñëpp mm-hmm. muy rectorat muy recteur bi mm-hmm. est-ce que convoqué na conseil de discipline ñu ñooñu ñu jugé leen ñu te ñu te ñu teg leen daan yi ngeen wax a daan ngir ñi bëgg jàng mën a jàng xam nga xam nga loolu mooy premier problème loolooy problème bi mooy que toog di grève wala bañ a grève pour ñun amu ci incidence il faut loolu ñu def ko loolu bu passé mm-hmm. lu gën a graaw loo xam ne lii pour ñun loolu lañu wax war a wax te buñ doon grève loolu lañ doon grève mhm. mooy boo demee faculté des lettres bi te nekk université Cheikh Anta Diop de Dakar mhm. dañu def li ñu mën wax rek double flux mhm. maanaam étudiant première année yi dañu ñëw jàng ba pare bi ñu paree euh, ñu arrêté dem tëdd ji nelaw étudiant deuxième troisième quatrième année yi doog a ñëw parce que université bi dafa bëri étudiant ba nga xam ni amuñu sax salle yu doy pour ñëpp jàngandoo te looloo fay xew jamono ji. looloo fa xew jamono ji ñuy xam nga loolu loolu moo gën a graaw foofu benn étudiant nangu na micro benn jàngalekat. donc loolu dañu war a wax du question ay étudiant bi nangu na micro jàngalekat beeg yi dañ def lii ak étudiants yi defuñu la loolu bu amee itam ñun li ñu war a def en tant que jàngalekat mm-hmm. mooy wax nañ ñu may nu ñu jàngalee étudiants yi te loolu SUDES loolu la mës a wax nañu defar ay amphithéâtre yu doy nañu recruter ay jàngalekat yu doy léegi li ci des ay disi question de discipline la question de discipline yomb na régler bu ko autorité bi bëggee régler dina ko régler et justement yéen ñii nañ ngeen di ménager wu en tant que enseignant pour def euh, ànd ak étudiants yi ci rytme boobu jàngal ñii tey euh, suba ñeneen ñeeg ñeneen ñi. a ah, loolu loolu moo tax étude enseignant supérieur dañu sonn nit ñi dañuy wax ni mais enseignant supérieur yi. yow da ngay yeewu dem saa ut salle de classe boo jàngalee étudiants yi boo amulee salle de classe nga dem sa dem ci internet bi parce que nekk biir université yenn saa internet u université bi du baax. da ngay dem sa kër toog ci internet bi di jàngale di jàngale ay étudiants yoo xam ni ñenn ñi amuñu ordinateur ñenn ñi amuñu internet bu baax xam nga jàngale bi da ngay toog di yenn saa yi nga may kenn lu mu jëndee internet. Mhm. xam nga xam nga ñun loolu lañ nekk di def chaque jour bu yàlla sàkk chaque jour ñu ngi fi tey ñu def tey ñu dem université jàngale bu ñu amulee salle ñu ne waaw étudiants yi tey grève la wante il faut ngeen ñëw ñu jàng ci internet parce que buñ ko defulee duñu mën valider année bi. Mhm. donc ñun ñi nekk fak lettre yëpp noonu lañ nekk di def ñi nekk yeneen fac yëpp noonu lañ ma nekk di def yenn saa yi da ngay gis bu examen amee étudiants yeeg en jàngalekat yëpp da mhm. ngeen di gis ñuy def examen lundi ba jàngalekat boo xam dimanche mu biir université di jàngale wala mu ne mu ngi biir université di surveiller ay examen nga gis jàngal étudiant boo xam ni dimanche day ñëw pour def examen loolu mooy situation wu université yi te loolu lañ war a wax bu grève di am loolu la ñu wax a wante du ay euh, ay ay ay ay détails yoo xam ni bon c'est vrai que nag grave na graaw na lool wante loolu mooy problème bi nga xam ni moom moo gën a graaw bu ñu am. professeur Ba wax nga ko sànq nee nga violence en milieu scolaire buñ ko bëggee faj nañ ko faj nonte euh, euh, ki nekk wala sax exemple bi ñuy joxe mooy kii xëcc micro professeur bi neex naa identifier waaye kooku nekk ci restaurant bi di toj ak ki nekk ci mbedd mi di sàndante xeer ñooñ nan lañ leen di identifier. gis nga ni ñu ni ñu mënee gis ki ki ki nekk ci euh, ci ci amphi bi jël jël jël jël micro. Mhm. université noonu la amee biir université du ay policier mais ay service d'ordre mu nekk campus. Mhm. social mu nekk campus pédagogique am na ay service d'ordre yu fa nekk. Mhm. te ñooñu xam nañ bu baax. étudiants yi kan moo fi dirigeant kan moo fi dul dirigeant kan mooy def lii ak kan moo dul def lii mhm. donc jour bu ñu bëggee étudiants yi ay li ñuy def xam nañ li ñuy def te itam boo seetee amicale yi mhm. amicale yi xaalis bu bëri moo fay jaar jël ay xale yu ndaw jox leen xaalis bu dul jeex mhm. ñuy xeex pour contrôler xaalis boobu loolu loolu moo am ci biir université bi te loolu la ñu war a régler mhm. loolu buñ ko régler woon problème dootul am mais mais mais li ci des yëpp ay wax la rek mais ñi ñi xam nañ bu baax li ñu war a def pour régler problème yi léegi nag est-ce que bëgg nañ ko régler ou pas ak lu tax bëgguñu ko régler loolu loolu mooy question bi. si seen benn communiqué gi ngeen fësaloon euh, ci weer wi ñu nekk muy le 16 euh, juin gi ñu wees yéen a ngi ci doon euh, xamle ne recteur bi dafa bëgg a def fee donc moomelam tey ji ñu bëggoon a xam lu waral wax jooju. xam nga xam nga IFE. IFE mm-hmm. IFE mm-hmm. euh, institut d'université la. Mm-hmm. institut d'université yi mooy institut yoo xam ni rectorat lay dépendre directement. wante institut d'université bu nee bu ñu la nee day dépendre rectorat directement mooy bu directeur bi soxlaa dara moom du yokk xaalis day dem ci recteur mu ne ko dama bëgg nga jëndal ma dara recteur jëndal ko ko. Mm. bu bëggee fay day wax recteur jox ma fay recteur jox ko ko noonu la dépendre ci rectorat léegi nag li demee ci science bi ci xam-xam bi mhm. IFE dafa dépendre ci faculté des lettres mooy jàngalekat euh, yi mhm. dañ naan ki nekk ki leen di yilif faculté des lettres lay jóge mhm. kii seen kilifa scientifique faculté des doyen faculté des lettres lay nekk loolu mooy euh, loi bi bi bi bi teg IFE. loi boobu loolu la waxoon. recteur yeewu suba. nommé ñaari nit nommé kenn ki directeur nommé kenn ki directeur des études. ki mu nommé directeur jugewul faculté des lettres. te loi bi dafa ni day jugee ki ki mu war a nommé directeur faculté des lettres lu war a jugee. xam nga loolu mooy day def lu ko neex. ñi nekkoon IFE nga xam ne ñu ngi fa di liggéey di depuis des années. ñu ne kii ñu nommé de ñun bëgguñu ko parce que du nii la waa demee ñu ñëw gis ñu ñun waa SUDES ñu ñu waxtaan ci ak moom waxtaan ci ak recteur mhm. recteur ne ñu institut d'université la donc lu ma neex lay def mhm. xam nga loolu moom mooy loolu moom amul ci république mhm. république du loolu lu la neex ngay def da ngay def li la loi bi permettre loolu ngay def wante du lu la neex rek nga def loolu nag muy Macky Sall muy recteur université de Dakar muy man amul kenn ci république ko xam ne ki da nga naan rek man hmm. lu ma neex lay def du ma xool loi du ma xool dara loolu nag moo tax ñun rek ñun ñun sud-est ñu jug ci affaire bi jàppale mm. suñuy suñuy suñuy naataangoo yi nekk foofu. professeur jeexale en tant que euh, enseignant chercheur euh, doon tamit universitaire bëggoon a xam euh, sa avi ci loi biñ fi voté bu yàggul fii ci mim réew jëm ci modification donc code pénal bi ak code de procédure pénale bi. waaw ma xam nga man duma spécialiste code pénal ak code de procédure pénale. Mm. donc loolu xam-xam bu boo xam ni bi la vraiment. Euh, du sama xam-xam li ma ciy wax waruma ci sori. Hmm. wante lu ma mën wax mooy man ci sam bopp bind naa ci terrorisme. Hmm. te lu ma gis mooy euh, zone Sahel bi am nañu terrorisme. Hmm. te Sénégal ci zone Sahel bi la bokk mënuñu toog Sénégal ne terrorisme bi fii ma a am. kon euh, man lu ma lu ma mën peut-être jaaxal. mooy depuis 2012 bi Mali bi ci le gouvernement bi waroon jóg. ne ah Mali jaxasoo na. Mhm. dëkk yu bëri ñu ngi nekk di jaxasoo ñun Sénégal lan la ñu a def pour li am ci yeneen dëkk yi bañ fi ñëw te loolu buñ koy def war nañ consulter euh, militaires yi ñoo ci war a jiitu wante. juristes yi wax nañ ci bokk universitaires yi wax nañ ci bokk mhm. euh, sociologues yi philosophes yi wax nañ ci bokk opposition bi wax na ci bokk euh, dafa am ay domaines yoo xam ne buñ koy def mhm. il faut mu nekk affaire boo xam dafa consensuel ñëpp ñu wax ci ñu ñu ñu ñu te élaborer ay loi yoo xam ni ñëpp ko ci koy nangu. Mhm. loolu mooy tax mu marché te boo seetee itam lu may mën déplorer mooy donc gouvernement bi def na ay loi yoo xam ni peut-être que mën nañ ko critiquer. Mhm. wante critique bi warul mën nekk rek waaw dañ ñu bëgg a tëj ñun ñëpp. xam nga même bu fekkee nag loolu la gouvernement bi bëgg. Mhm. ñun war nañ mën taxaw ñu ne. loi antiterroriste de. pour mu baax lii lañu war def ak lii lañ war def ak lii lañ war a def lii mooy situation wu Sénégal Sénégal lii la soxla donc ma opposition bi peut-être foofu bëggoon naa ñu bañ a yem rek ci gouvernement bi daf ñu war a tere manifester daf ñu bëgg a tere manifester wante ñu ne ah puisque gouvernement bi nee na loi antiterroriste la bëgg ñun lii la ñu wax ak lii ak lii buñ ko defee baax na ci antiterrorisme parce que terrorisme question bu sérieux la quand même mm, mm, mm. donc wax nañ ci mën jug ñun ñëpp ñu waxtaan ci réfléchir ci même bu fekkoon gouvernement bi defu ci dara sax ñu wax gouvernement bi ah terrorisme de wax nañ ci def lii ak lii wala jarul ñu ci wax sax parce que ñun moom euh, yala may nañu am nañu lii ak lii ak lii moo tax peut-être euh, terrorisme bi pour mu egg fii dina metti xam nga loolu wax nañ ci mën wax réfléchir ci am ci solution wante loolu laa gisul que mu nekk côté gouvernement ak mu nekk côté opposition nag. Mm-hmm. vraiment man loolu moo ma ci jaaxal wante loi bi moom peut-être euh, code de procédure pénale am na ay spécialistes duma ci wax ci loo xam duma spécialiste. d'accord merci beaucoup monsieur Ba. je vous en prie.